ay waay massage ay waay lii mooy massage si Gambia massage ay waay ooy massage ah massage. <laughs> yow gis nga massage waaye man kay duma massage dañu mooy xuloo ba ma dee ngay wax. jarul dee. sella <laughs> door benn. li may door. benn tous la. déedéet mënuma door fii benn tous yow dig two thousand tey nga may ñoo jox xaalis. waaw déedéet loolu nekkul yow yaa yaa doon lijjanti two thousand yi ah laa doon lijjanti. two thousand laa ko two thousand si ñun two thousand loolu day xaalis. two taw two thousand ñaata lay doon two taw. two taw day xaalis. Ah, xam naa ah? ah. ñun ñun taw. tout tout taw ngay wax ñun tout taw 2000 la si ñun. Eh, danga may may wala mayoo ma. waaw si loolu laa nekk de xaalis bee sori de. waaw gaaw a yow lay xaar damaa yàkkamti. waaw ci laa nekk de. xanaa ay xeer ngay génnee. waaw du xeer sax bi la waaye fa mu nekk ruqi.